jëlal ñun daal danoo sonn ay jigéen yu daal ñëpp dee nañ ñëpp sonn nañ fii lañ jaayee am ñu fu ñu jaay fi fii loolu la doon wooye dañu jaay ci bi jënd bëgg loo waaw ñun dara méttiwul ñu lu dul jeunes yi bëgg a ñëpp bëgg a liggéey ñun ñun duñ liggéey lool lay laaj ñoom fu ñu ko teg nit ki boo ko jëlee war ngo ko mën a yóbbu fenn mais yóbbuwuñu